mbaa yéen a nga ca rapport autopsie bu taalibe bi nga xam ne ki koy jàngal maanaam sëriñu daara moo ko duma ca njàmbur rapport bi génn na ba noppi takka rip sëriñu daara bi vox populi ni taalibe bi kay traumatisme crânien la maanaam dañ ko duma ci bopp ba mu amee jafe-jafe bu nu sukkandikoo ci médecin légiste bi la mu xamle mooy sëriñu daara di Abdoulatif Cissé moo ko duma bañ koy toggali xewar yéeglekaay bi ne Abdoulatif Cissé di sëriñu yoon jamono ji te taalibe bi di Abibulaay la ñuy sàkk mooy jeex tàkk enquête ne Abibulaay Kamara faatu na waaye autopsie bi sëriñu daara bi la dugal ba mu tax rib laa tribune ne ginnaaw faatum moom Abibu Kamara autopsie bi ñu def dëggal na ni dañ ko doon toroxal ak fitnaan ci daara ja mu newoon loolee tax balaa ne musiba yi am ci daara yi biir la moo xam ne amul fa mu yem maanaam amul am l'observateur ne Pape Alé Niang taskatu xabaar bi daa def l'accident ni ki démb ci guddi ci corniche bu Ndakaaru yëglekaay bi Pape Alé Niang taskatu xabaar bi ma nga ca loxo yoon démb ba tey te tey ji lañ koy defeere ci kanamu ëttu attekaay bi vox populi ni nappkat ya nekk ca sumbi jun danoo sëngeem ndax ñette ci ñoom ñoo réer mër ci géej gi te ba nii ñuy àddoo des na leen tegi yi yëglekaay bi ne donte sax gis nañu seen ab gaal ak seen ab jumtuwaay waaye ñetti doomu aadama yi ba léegi ni kenn gisagu leen seet gi nag ñu ngi ko wéyal laas ne dialogue national bu nu sumu ci cadre bi nga xam ne dañu bëgg ñu indi ci joyanti loolee tax ba yëglekaay bi ne dialogue national bi nu suma ci mim réew ci laaj dëgg la jëm Sud Quotidien majorité bi nag fa nu tegoon seen tànk démb lañ ko teg tey te fas yéene ci dindi virgule Sud Quotidien jox kàddu gi Jibril ñi bu gaa ni ñàkk déggoo yi nga xam ne nag la ñu nemmee ko ci dialogue bi moo nar a ci waxtaan wi ci jafe-jafe gu tar maanaam daal ci ko gàttal fu mu jëm sa waamee la jëm te loolee nag bu amee ci mim réew perte temps a Samb ni am na leen loo xam ne denc ko waxtaanee ci dialogue bi daf waxtaanee ko moom sóoran sa bopp kott la les éco jox kàddu gi l'opposant ci réew mi ku ci mel ni Déthié mi nga xam ne yàqale mel ni xamee Benoît Sambou ak a ak maître Ousmane Seye ñi nga xam ne ay gars yi lanu ak ñi nga xam ne noonu la ñuy dialogue national bi le quotidien ne nekk njiitu réew nekk njiitu parti ñaari njiitu assemblée nationale ak i gaayam ñu koy taral seen kàddu ndaxte nee nañu am na ñenn ñoo xam ne ci l'opposition la ñu nekk te seen bëgg-bëgg mooy taal réew mi wala bokk sel ma toog te loolee nag ñoom nee dootu ju ko seetaan mukk lu waay neex rek yàq njiitu réew mi Macky Sall le ndaje bi nga xam ne waa APR danañ ko amal tey ji ndaje bu tànk jër la te lu ne mën na caa xew la turbune ne njiitu réewu Sénégal yi moom kenn du ñoom dalee ko ci Abdou Diouf ba ci Macky Sall ko ci Abdoulaye Wade bàyyi Karim Wade gi la ñuy ne ba ci sax asamaan jox la ko nag moo leen di jaaxal Sénégal dina am stade bu yee ne démb la njiiti réew mi Macky Sall samp xeer bu njëkk bu stade olympique bu jam ñaajo laas ne moo taxit de ndax démb benn kilifa ci gouvernement bu Sénégal desu ci gannaaw ñëpp a nga woon ca jam ñaajo loolee tax ba yëglekaay bi ne démb nag mumbaay ak xumbaay dëgg la ñu nemmeeku ci sampum xeer bu njëkk bu stade olympique bu jam ñaajo enquête ne njiiti réew Macky Sall nag la mu bëgg mooy ay raaya ci jeux olympiques ñu dégmal ci réew mi ba noppi dox daje askan ñaar fukki fan weeru août atum 2021 bu ñuy daloo boobule stade olympique njiiti réew mi Macky Sall ci enquête Sénégal amal coupe d'Afrique des nations ñu bàkku jëm ci làmb ji ak sunu lamb jàkkaarloo Papa Sow ak Siteu tey ci ngoon lañ koy amal ci stade Marius Ndiaye ñeenti waxtu ci ngoon en direct lay doon ci ITV ak ci i rajo yéeglekaay bi ne ñaari mbëri nag tey la ñuy xasante ginnaaw seenub jàkkaarloo Papa Sow ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri simili lañ ko convoqué Siteu juróomi waxtu ci ngoon bi la jàkkaarloo nag dina neex ba romb ko ndax am méga show maanaam concert bu rëy moo fay am Pape Diouf Ngaaka Blindé ak ñeneen ñoo koy tëgg source aané waa ji ab sëriñu daara la waaye la mu def jéggi na dayo ndax ja ba noppi duma nday ja teg ci te dara boolewul leen lu dul mburu l'observateur ne ab borom kër ak benn mannequin bu góor la ñu ñu def naka surul noonu yëglekaay bi ne ñoom ñaari ñëpp maanaam borom kër gi ak mannequin bi ñu nga ca loxo yoon jamono ji da seet loolu rek ji